Si vous ba ci biir seetaan nit ñi ba ci compliqué les mêmes mesures dans différentes situations comme si da ngay tâtonner fu mu ne nii euh, mbooloo bi may liggéey déjà ci fédération bi rek bëri na parce que ay section la ñu fii ba Pikine am section Guédiawaye am na section donc donc loolu lañ ko defee ba Thiès ak yëpp mais fii ci Blaise Senghor rek am na lu mot neuf compagnie groupe yoo xamante ñu ngi fii di liggéey te ñooñu ñëpp fu toll nii euh, ci wàllu feebar bi dañ ci lompoñ trop trop trop parce que boobu ba léegi liggéeyuñu. Euh, lu mu lu mu néew néew mun na dina dina dina nekk 150 personnes yoo xam ne ñu ngi liggéey parce que compagnie bu nekk minimum di nga am 25 personnes. ñun avril dañu waroon def Festigraph qui était qui est la euh, qui devait être la 11 11e édition du Festival international de graffiti on devait avoir minimum euh, une trentaine de nationalités yoo xam ne fi waroon ñëw avons fait pendant 10 jours nous avons exposé ñi nga xam Sénégal ñi nga xam on avait déjà envoyé des contrats et tout signé Nous avons commencé la commencé communication parce que nous avons nañ def euh, yenn support yi mais bu a une situation de femme dans quoi, koy nangu parce que ci dëkk bi et quand les mesures sont là sont pour tout un chacun amul ma Samba amul ma Demba donc dañoo jël li ñu xam ne ñu neex ak moo ñu naqar ñu teg ko ndax Sénégal mo soxla dafa am lu dal ci Sénégal mais bu continuer di metti ci ñun c'est normal que aussi ñu trouver yeneen solution mais solution yi mënul sori parce que tout, liggéeyatul liggéeyatoo quoi. Euh, avant Covid bi dama amone ay contrat yo xamné pour la danse euh, dama doon nekkoon théâtre national déjà euh, dama doon des cours dans des écoles françaises franco-sénégalais et yooyu dafa nekkoon et en même temps avant Covid bi dama une résidence pour ben création bo xamné on devait faire le tour du monde pour 2020 et loolu yëpp euh, Covid bi dako la stop ci donc euh, actuellement je suis en chômage carrément Euh, juste mesure bi bu mu génnee amoon na ñaari euh, tournée yo xamné waron nañ ko def ñaari festival benn bo xamante ni Italie woon beneen bi bo xamante États-Unis la won ñu amoon aussi ay cours de danse yo xamné dañ ko don waron joxé fi ci Sénégal yo xamante ni dañ ko programmé won yoy yëpp tamit dañ ko mujjé arrêté ba fu mu toll euh, tambali wat nañu mais ay cours en ligne lañuy def nous ngi joxe cours en ligne euh, compagnie dimanche bu nekk ñu ngi cours en ligne mais loolu aussi compagnie bi yëpp du mun a donc loolu mooy problème bi fu mu toll je vrai tiit naa ci ba ko <laughs> dama ko parce que là actuellement déjà je suis resté six mois presque six mois sans salaire sans salaire je me débrouillais de gauche à droite pour essayer de vivre j'ai dama am appartement may fay fay électricité ndox je suis marié dama am jabar tout ça et donc je suis donc comment je fais donc mesure bi titel na trop sax en plus xamaguñu kan c'est pour quand tu vois xamaguñu c'est pour quand donc mesure bi ça me fait peur. Euh, depuis affaire bi bu commencé, commencé mosuñu am difficulté bu mel nii tey euh, mesures yi ba sonal nañu trop trop trop trop en ce moment là parce que mesures yi ñu jël nii trois mois nek nañ presque lu 3 mois dans feccuñu defuñu ben activité bo xamante carrément ni war nañ yóbbu dara suñu wa kër yi ñu yokkat ci tamit yeneen 3 mois yo xamante carrément kale woon nañ ay date ba paré yo xamante ci si yi mo waroon jouer euh ñu ngi doon préparer wu tamit ci ay création yi waroon def instant ni mënuñu sax def collectif en groupe wan wan la té instant wan wan bobu non arrangé wuñu té suñu kër dañuy déranger. pour se dire la vérité déjà notre gouvernement en fait cër bi ñu war jox ñun joxuñu ko té bo seetloo danse moy facteur de développement bo xamné peut-être nit ñi dañ koy minimiser parce que ici au Sénégal danse dafa noo xamné ne ñëpp fecc c'est un truc euh, culturel bo xamné ne ñëpp ko mën aada yëpp ko am culture yëpp am fecc léegi du coup gars yi dañ koy banaliser alors que danse facteur le bo xamné day carrément jouer ci économie Sénégal déjà dans l'année bo xamone nombre de danseurs yu joggé Europe que fu nek au Sénégal di dépenser fi di vivre di des di faire ay taxes di payer de auto nourrir pendant deux mois presque toute l'année on a des invités yu ñew et tous ces gens là ils participent à l'économie du Sénégal mais man actuellement les moins que je fais je ngi ci genre des cours en ligne peut-être mais d'où Sénégal genre souvent en Europe nous la xam nous faire forcer pour nga defal cours online pour que nous ayons revenu mais à part ça on ne voit rien à ce que suñu suñu gouvernement mu ngi koy def. les 3 milliards qu'on a dit que c'est pour la culture ku nekk la nga c'est une solution mais ce n'est pas la bonne solution pour moi parce que jeex la pandémie bi mi ngi fi d'autres mesures viennent et ça s'impose encore plus ñooñu nga joxoon as tout, mais seen doom yi dañoo war a jàngi seen doom yi dañoo war a lekk dañoo war a naan dañoo war a faju dañoo war dañ ko wara fay ñoñ dañoo wara a faju dañoo am ay soxla mais loolu yëpp bu amee amuñu amuñu amuñu boo loo xam ne pour l'instant je dis même pas juste l'État hein. ça vient même de notre euh, ministre de tutelle boo xam dafa war a waxtaan ak Réfléchir à ces acteurs culturels yi nga xam ne ci mom lañuy bok nan lañuy def durant cette pandémie ñu mën di am luy rot ci ñu jëm ci seen poste pour ñu mën dundal seen il faut que ñu waxtane ko. il faut que ça soit plus structurant l'aide qu'on donne aux acteurs culturels 3 milliards kan mo wax ni 3 milliards lañ soxla li secteur culturel bi di duggal ci euh, comment ça s'appelle ci état bi est-ce que nit ñi jël nañ temps un jour évaluer ko. fond Covid bi déjà ñun li day ñëw gën ñu sax dogali moy gën ñu sonal parce que fond Covid bi déjà ñu ngi ñu alloué woon millions pour tous les danseurs du Sénégal alors que ñun on est 5400 danseurs déjà lool c'est un problème mu wu ñu jël xaalis bi c'est parce que du question dañ ko gedd mais ñu ko sédel parce que ça euh, day day indi ay problèmes. si biir vraiment euh, groupe artistes yi ak yëpp loolu ñu ko jël déjà bobu jëluñu ko ñu ñëwaat encore ne ñëwaat pendant trois mois duñu liggéey donc vraiment les danseurs ñom le lii di gëna gëna affecté en tout cas nous sommes trop encore buñ ci trois mois yo xamante donc ça fera au moins huit mois yo xam ne donc nous ngi def appel aussi le ministère de la culture ou le ministre de la culture mu mun a tog ak danseurs yi parce que là aussi je pense que c'est important. même état bi bu jox nañu 50 millions en tant que danseur mun nañ wax ne ko doyul parce que ku ci nek ben cinq mille nga ci am wala et cetera par rapport à 3 mois peut-être 4 mois yoo xamante ak li ñëw tamit ci kanam wuñ ko bougé dara que ne métti trop trop déjà le plus petit mooy fonds yu ñu 5400 danseurs nga 50 millions pour chacun ku nekk am 10 000 francs ou bien 7 000. ko mat 7000 ngay am wala alors que man revenu ça dépasse au-delà de ça. je peux même dire que ni un danseur il peut avoir même le ci benn weer dina am loo xam même le ministre du ko am comme salaire te daf ma dal du Ben du ñaar si euh, création bu ma jógee ba ba mu arrêté je peux dire que ni du mané ne ministre sax man mën nañ salaire actuellement que je suis danseur mais en fait sénégalais yi amuñu ok euh, genre ouverture d'esprit bobu ak culture bi lum mu leen jege ils comprennent pas même pour ñom fecc dafa ñaax fayda c'est un truc parce que dañuy gis ci télé aussi ñenn ñi nekk ci tanu beer yi di rey seen bopp di sol solun bi ñaaw mais la danse est au-delà dépassé na il y a eu quelques quelques quelques manifestations yu am ndaw nii trois jeex et puis yooyu c'était privé c'était privé. Et nous, on ne s'est pas arrêté à continuer à sensibiliser les populations avec les moyens du bord. Maintenant, quand on dépose un projet, nous disons, mais dans l'immédiat, euh, pour moi, le digital, il est présent. Comment on peut arriver avec le digital, semble, à respecter ces mesures-là, à pouvoir se avoir un retour euh, d'argent par rapport à, à, à digital. Les gens commencent à faire des concerts live chez eux, avec leurs musiciens en respectant faire ñi nga nous faisons des fresques murales euh, pour sensibiliser les populations Nous faisons des sketch et tout ça il faut que nous am un fonds qui permette à ces personnes là à pouvoir réaliser ces choses là mais à pouvoir vivre de ça Un am retombé salarié benn retombée retombé xam ne dal régler le minimum Et ça, c'est pour moi, il n'y a pas de solution extraordinaire que le digital est là, on a vu son... Et puis, ce n'est pas un truc, bon, c'est loolu le secteur digital bi fini. nekk ñu trouver une méthode pour ramener ne dina mën impacter ci acteurs culturels ñu mën exploiter ce digital là. il faut que ñu jël temps réfléchir secteur bu nekk quel lan mooy besoin essentiel am et nan lañ ko mën maintenir parce que am curieux kër yoo xam ne ci tas évidemment évidemment parce que am na ñoo même dans le dans naturellement bi pandémie bi amul woon revenu bi demeewul woon non ci côté bu pandémie bi gënee metti revenu bi def revenu am bu revenu am nan lañuy ils vont ils vont même se dire que je vais laisser la culture bi nga xamne moma dund bo fi ma dem defi lenen parce que suñu dix ans ngi nii maa ngi danse instant li ma am yëpp presque danse moo ma ko may li ma am ni yëpp danse moom ma ko soo gisee yeneen star di ma woo may toog ak si yenn affaire di dem si yenn milieu yi di voyager danse moom ma ko may sama métier mosuma koon may te instant def naa teg naa sama métier def naa danse sama métier instant yi man tailleur lii nii laa woon tailleur laa instant yi nii sama idée mooy carrément ma war a delluwaat ni defi tailleur bi parce que instant yi nii ba mun naa ñaw ay yére jaayaat ko mun naa def dem sama atelier papa toog ci ñawaat yére jaayaat ko malgré que ba C'est du dañ ñaa jàng ko ba pare mais danse bi moom man moo ma l'état fu toll ils sont pas en mesure de comprendre nous ce qu'on fait donc ils ne pourront pas nous satisfaire mënuñu mënuñu jox pas nous satisfaire parce que man je peux dire avant corona bi li ma am salaire ministre sax amu donc euh, mënuñu jox lu ñu satisfaire donc maintenant peut-être ñu nous nu nous apaiser pour au moins sax ñu mën sentir suñu bopp ci population bi xaalisu aide bi les 50 millions dañ ko war a yokku jox ko danseur yi xam nga ñoom ñu mën a subvenir à leurs besoins parce que ay nit lañu ay liggéey la danse. même ci euh, début bi bi nga xamante ni ci tàmbali bi bi président de la république joxe 3 milliards yooyu ñëpp a nga ko doon rafetlu ak yëpp mais dañ ne su fekkee mbir mi continuer na donc defe naa yi ñu doon laajte yat laajte yooyu egsi na tey te ñun nag bu ñu sañoon wax dëgg yàlla boo xoolee ne am na yeneen kuréel yoo xamante ni ñu ngi leen di permettre ñu sol mas def seen activité ñun aussi dañ doon ñaan vraiment fii ak benn weer wala ñaari weer ñu mun ñu permettre loolu ñi ñi mun a sol ay match suñuy fekkee dañuy def ay spectacle même bu fekkee dañuy wàññi nombre yi mais ñu mun a continuer def suñuy spectacle sinon dina doy waar trop toog déjà ba décembre doo am benn activité booy def loolu day metti trop muy musicien muy ki def théâtre mooy lépp il faut que ñu xool nag la ñu mun a liggéeyee parce que mënuñu continuer nii toog ba décembre c'est pas possible ministre de la culture war a ñëw toog ak acteurs yi ñu toog waxtaan xool quelles sont les solutions parce que ñun ñëpp ñooy nekk ben bloc pour mon a nak nag la ñu xeexee lii mais ñii ñi mënuñ taxaw fële ñi taxaw fii faut mu nous déglu ñu ñun ñu joxe ay solution moom aussi mu xool solution yooyu nak la ñu fexee ba régler ko mais en tout cas les danseurs sonn nañu trop par rapport ak lii vraiment